dal leen ak jàmm seen seen bii di Buzz M TV ci SENactu 10 jours kii di Tiken Jaffa Colley di ab artiste chanteur reggae man di ab panafricain yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci situation politique bi ci réew mii di Sénégal ci waxtu bi ñuy wax ni ci réew yu nekk ci Afrique francophone ak réewu France ab divorce moom moo tàmbale di ci am kii di Tiken Jaffa Colley ne jeunesse africaine bi pare nañ pour may baat réewu France waaye réew France moom moo siisu ne du daal di jóge ci sëy bi waaye ne tôt ou tard réew yu nekk Afrique francophone ak réewu France fu ñuy mujj moom mooy que ne dañuy daal di tàqalikoo ginnaaw li ni mel kii di Tiken Jaffa Coly daal di woyal ne lu kii di président Ousmane ko def en tant que leaderu parti bii di Pastef ne li ni mel moo ngi soog a am ci continent Afrique bi yëpp ndax ne politiciens yu njëkk ya xalaatuñu woon a jël seen place di ko jox koo xam ne ne ñoom ñoo bokk parti politique ngir kookee dal di leen représenté ci élection présidentielle donc ne jëfinu kii président Ousmane Sonko jëf ju historique la ci continent africain bi yëpp waaye tamit ne lu jeunesse réewu Sénégal génnoon massivement ci bésu élection yi xulloowuñu xeexuñu dal di fal seen président bu bees démocratiquement dal di nay wane que ne réewu Sénégal ab askan wu matir lañ dal di amee waaye tamit ne li ni mel beneen jàngat bu ci am moom mooy que ne jeunesse africain bi dañoo daal di yeew te daal di nañuy pare ngir daal di dàq képp ki nga xam ne ne ab envahisseur nga ab colonisateur nga ci seen continant bi di Afrique te ne kàddu yooyee mu yëkkati firnde yaa ngi biir réewu Niger daal di nekk biir réew Burkina Faso daal di nekk biir réewu Mali waaye tamit ne tey kàddu yooyee firnde baa ngi biir réewu Sénégal mi nga xam ne ne pacifiquement lañ jëlee ci bopp réew mi ay candidat milliardaire daal di fay teg ab benn jeune bi nga xam ne ne day incarner panafricanisme day incarner futur président yu Afrique war a yore ci continent bi ci lu yàggul dara. ginnaaw li ni mel ci samedi bi ñu génn kii di président Macky Sall amaloon na benn cérémonie biir palais de la république ngir ne day décorer ñi nga xam ne ne dañoo amoon ab taxawaay bu exemplaire ci secteur bi ñu doon ci réew mi di Sénégal. ba muy diriger réew mi waaye cérémonie boobee kii président Macky Sall daan amal ci biir palais de la république fu mujjee moom mooy ay jàppante bu tar bu jaar ci diggante ñaar ñi nga xam ne ne kii président Macky Sall moom moo leen doon décorer ci cérémonie boobee. ci cérémonie boobee nag kii président Macky Sall ñu ci njëkk a génnul ay ministre de la république yi nga xam ne ne ci régime ma ne ñooñee dañoo amoon ab taxawaay bu exemplaire ci liggéey bu leen dénkoon. te ne ñaari ministre yooye du kenn ku dul kii di Abdoulaye Daouda Diallo ak kii di Aïssata Tall Sall ñaar ñooñee ñëpp kii di président Macky Sall takkal na leen liñ dippee ordre national du lion waaye tamit ginnaaw li ni mel kii di président Macky Sall daal nay tànn kenn ci DGM yi te muy kii di Racine Talla nekkoon na directeur général bu RTS daal di koy takkal la ordre national du lion ndax ne kookee nim ko dénkoon ni mu ko téyee téye bu exemplaire la bu ñepp wara mëna roy ci réewu Sénégal ginaaw li ni mel tamit ci président Macky Sall takkaloo na liñ ordre national de Lyon, artiste chanteur yu melni ni que Viviane Sidit Ndour waye tamit ki di Omar Pen waye tamit ginaaw li ni mel ba tay ki président Macky Sall ordre national de Lyon, ay ancien gloire mbeur ci réew mi di Sénégal te ñoñé du kenn ku dul ki di Manga 2 ki di Yekini ak ki di Mustapha Gueye ñaari tur nag ñu mujjee tudd te muy kii di yëkk Yékini ak Moustapha Guèye ginnaaw ba cérémonie bi jeexee jàppante nañ jàppante bu tar biir palais de la république ba garde di corps yi ñoo leen mujjee séparé ñuy soog a génn ci biir pale bi. ginnaaw li ni mel kii di Tahirou Sarr di ñiitalu mouvement bi ñu dippee nationalisme sénégalais yëkkati na ay kàddu daal di xamal kii di président Bassirou Diomaye Faye que ne bu bëggee réussir mission en tant que président de la république si réew mi di Sénégal faamu daal di. taxaw temm daal di jàmmaarloog lobby yu bëri yu dul jeex ci réew mii di Sénégal si kii di Tahirou sarné ci réew mi di Sénégal dafa bëri lool ay lobby te ne si dina si joxe exemple lobby pharmaceutique yu nekk ci réew mii di Sénégal si loolee kii di Tahirou Sarr ne bu ñu amee ab taxaw seetlu ci hôpital principal yëpp yu am ci réew mii di Sénégal doo fekk benn si ñoom si biiram ab pharmacie waaye ne boo génnee ci hôpital boobee ci buntu principal bi à chaque fois di nga gis ab pharmacie buy jàkkaarloog euh, hôpital boobee te ne pharmacie yooyee ñu ëpp ñu koy moom du ñenn ñu du docteur yi nga xam ne ne ñoom ñooy faj ci biir hôpital principal bi. donc ne docteur yooye en plus ci salaire bu ñuy percevoir dinañ amaat beneen xaalis bi nga xam ne ne ci pharmacie yi moom lay bàyyeekoo. te ne lu docteur yooye tamit moom pharmacie yooye day sabab yenn saa yi ab patient bu ñëwee foofee buñ koy bindal ab médicament ñu koy bindal ay excès rien que pour ñu daal di ci am ay pourcentage via seen pharmacie boobee ñu am ci buntu hôpital bi. si li ni mel nag kii di Tahirou Sarr ne kii di président Bassirou Diomaye Faye bu fi buggee jëlee lobi yooye faaw mu daal di amal liñ dippee ay pharmacie yi nga xam ne ne day nekk ci biir hôpital bi si boppam ne pharmacie yooye état bi na ko gérer boppam bu ko defee mu daal di am liñ dippee banque pharmaceutique bi nga xam ne dina permettre état bi mu daal di subventionner médicament yu dugg ci réew mi di Sénégal waaye tamit ne en tant que état bu fekkee dafa jël ay devant di def ay commande jëmale ko ci ay médicament am na médicament yoo xam ne ne dañ ko koy may gratuitement donc ne kii président Bassirou Diomaye Faye bu bëggee combattre lobby pharmaceutique yooyee li mel lay amal ci réew mii di Sénégal ginaaw li mel kii di tey Sarr daal di woyal ne am na tamit beneen lobby yi nga xam ne ne et chef d'entreprise ñoom ñoo koy amal ci réew mi di Sénégal ne si li mun na see joxe exemple lobby yi nga xam ne ne et chef d'entreprise u assurance ñoom ñoo koy amal ci réew mii di Sénégal ne si li ni mel Sénégalais bu ñu amee ab taxaw seetlu bu ndaw dinañ gis que ne képp ku fi amee ab oto di fay assurance ne assurance boobee du jëriñ leen lu dul nga daal di koy won ab policier mu daldi lay bàyyi nga daal di circuler librement waaye ne ginnaaw li ni mel boo amee ab accident société d' assurance boobee war laa taxawu war laa dédommager ne société d' assurance boobee doo ko gis fenn wala balaa ngaa jot ci dédommagement boobee di nga daw ba dee ngir soo ko jot ci lu gën a néew li nga waroon a utiliser pour réparer sa oto bu yaaxu boobee. waa tamit ne société d'assurance yooyee duñ fay fiscalité comme il ci réew mii di Sénégal nee na kii di président Bassirou Diomaye Faye bu bëggee xeex ak lobby boobee faa mu daal di jël ay mesures strictes jëmale ko ci société d'entreprise d'assurance yooyee ne ñooñee dañoo war a fay fiscalité comme il faut waaye tamit ne ñooñee bépp oto buñ assuré bu oto boobee amee accident dañ ko war a taxawu dal di koy dédommager ne société d'assurance yooyee bu fekkee ne aataluñ mesure yooyee état bi teg seen kaw nañ daal di déclarer fayit jël caabi société bi daal di koy dénk état bi ne ginnaaw li ni mel na état bi daal di jël société boobee daal di koy nationaliser daal di koy gën a taxawu daal di yokk personnel bu muy fay bu ko defee dina dem ba daal di régulariser lobby yooyee nga xam ne ne daal nañuy am ba noppi ci réew mi di Sénégal lii lañ leen andiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen ni mbir incha